برأ الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي barra'ani al-baaqi min al-amraadi buntu bi nag ci irwa ul nadim sëñ Mouhamad Lamine Diop mi ngi ko tuddee xaatimatu muy ak mottali goo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine daf ci indi lenn ci may yi nga xam ne Cheikhul Xadim wax na ko muy may yu kawe njort yu ko sunu borom defal moo ne sëriñ tubaa dafa wax ne pexe yu ko ay noonam doon fexeel ci ñetti mbir muy bëgg faat ba kanam wala tëj ko giru dundam wala rankel ko génne ko am réewam sëriñ bi nee na ñett yooyu yàlla tas na yaakaaru ya te seeni pexe joyul te yàlla fayee na ko ci ñett yooyu ñu ko doon fexeel pay gu yéeme ndax sëriñ bi nee na yàlla sunu borom moo def tukkeem bii mu amee ca daraja yu toll ne daraja ya yonente ya amoon ci fitna ak bala ya leen yàlla daan teg ci jihaad yi ñu daan jihaad seen diggante ak seeni noonu sëriñ Modou Lamine mu ne looloo waral sëriñ Tuubaa di wax ci bayit yi naan wa min xawaarixi nabi lmufaddali alayhi taslima alali lmufaddili kawnu sini taxarrubi mustaxraja min zamanin mada mazaaya muxraja qad subbihat bima mina rusli jara ila allazina kulluhum qad fajara alayhim salaatu wassalaamu kaman tafat bi baasihim zalaamu sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci xéewal yi ma sunu borom subhaanahu wa defal muy xéewal ak i may yi nga xam ne sunu borom defal na ma ko ci ati tukki bi muy pay goo xam ne toll na ne pay yonente ya alayhim salaam ca coono yi ñu daan daj ca seen digganteeg seeni noonu mu ne waxat badat mujizatan xablu badat lil mustafa fi xurbati waxat hadat وهي كون من تسببوا معا فيها هاعد الذي المنالي جماعة قد غبطوا من لم يكونوا معهم من العدا والرب ليق معهم وأن من تسببوا لا يدخلون في جنة الله ونارا يدخلون وأنهم ليس لهم في أبدي ما لم يتوبوا غير أبقى كبدي سرين bi nee na bokk na ci kéemaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi ma yàlla rafaatalee ci sama tukki bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku ko mësa noonoo mbaa nga def ko ab safaan dinga ko rëccu te dinga ñee lool ñi ko mës sa noonoo sëriñ Tuubaa ne moom it képp koo xam ne mës na koo noonoo ba sa loxo tàbbi ci li ko génnee am réewam tumarankel ko dinga ñee ñi ko mës sa noonoo mukk te nee na képp koo xam ne laale nga dara ci sabab bi tax ñu génnee ko am réewam tumarankel ko kooka de njàqare ak tiis ci lay dëkk giirug dundam te faatoo tàbbi sawara wala yaasu billah du tàbbi àjjana mukk lu dul rekk muy ku yàlla baaxe mu tuub réccu dellu gannaaw ci la mu defoon njëkk ak faatoom sëriñ Mouhamadou Lamine Diop mu ne bayit yooyu nag li ci sëriñ bi wane mooy day leeral ne sunu borom subhaanahu wa ci ngëneelam akuk teddangaam daa méngale li sëriñ Tuubaa daj ci ay coono ci tukkeem boobu mu méngale kook la yonente daan daj ci seeni noon ci xeeti fitna ak balaa akuk tumuranke te lépp lu yàlla fayoon yonent ya ci njariñi àdduna ak alaxira ci lu feeñ ak ci lu nëbbu yàlla fay na sëriñ Tuubaa lu ni toll ci jaar-jaaram yi mu jaar ak ay noonam te lépp lu dal noonu yonent yooyu alayhimu salaam ci lori àdduna ak alaxira sëriñ Tuubaa nee na loolu mooy dal ay noonam ci lori àdduna ak alaxira te képp koo xam ne laale nga dara ci fitna yi ñu tegoon sëriñ Tuubaa ba génne ko am réewam tumurankeel ko di nga ñëwee ba fawwu ñi ci mustalaale mukk àdduna ak alaxira xam ne tooñkat bi dina mat loxom reccu te naan ay man aka neexoon ma topp yoonu yonent bi aka neexoon duma xaritoog diw sàngam mi nga xam ne ginnaaw bi ma gëmee alxuraan ba nangoo topp bi sallallahu alayhi wasallam sallam moom moo ma réeral wet loo ma yàlla akub yonentam sallallahu alayhi wasallam sallam loolu nag aaya alxuraan la boo xam ne sunu borom mi ngi ko wàccee woon ci ku ñuy wax Uqbatu bnu Abi Muayyad mi nga xam ne daa duggoon ci lislaam ba noppi waaye bëggoon lu neex ab xaritam bu tudd ubay ibnu xalaf taxoon na mu mujj tubbi génn ci lislaam ja mu nekkoon moom la alxuraan di wax naan wa yawma ya'addu zaalimu ala yadayhi yaquulu yaa laytani ittaxastu maa rasuli sabila yaa waylatee laytani lama taxas fulaanan xalilan laqad adallani an zikri bada is jaani wa kaana shaytaanu lil insaani xazulan su ko defee kon loolu dees na ci mën a dégge ne amoon na ñoñ lu neex diw sàngam rekk taxoon nañu bokk ci fitna ji nga xam ne moom la noon yi tegoon sëriñ bu mag bi waaye ñoom ñépp nag dafa mel na rek seytaane moo leen dugal ci lañ nekk te bis penc ñoom ñépp dinañ màtt seeni baaraam rëccu lool la leen ca dugaloon te kon loolu lépp nag kéemaan la ci kéemaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu rafaatalee ko sëriñ bu mag bi Cheikh Mouhamadou Lamine Diop nee na ba tey am na juróom ñaari kéemaan ci kéemaanu yonente bi sallallahu sallam yoo xam ne yàlla xéewalee na ko sëriñ Tuubaa mu bokk ci ay karaamaam ca tukki bi géej ga ba ca njëkk mooy sëriñ Tuubaa nee na sunu borom lotal na ko ay noonam ba duñ ko mënal dara njëkk muy feeñ jamono ñaareel bi mooy sëriñ Tuubaa nee na yàlla jox na ko xam yoo xam ne deesu ko amee cim njàng ñetteel bi mooy sëriñ Tuubaa nee na fukki ati tumuraankeem gi de ak liggéey bu sell bii mu ci liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam te yàlla rekk tax loola yonent bi salallaahu alayhi wa da koy bàkkoo di ko puukarewoo ca kanamu yeneen yonent ya alayhimu salaam ñeenteelu kéemaan gi mooy sëriñ Tuubaa nee na yàlla def na képp ku nar a rek di nga ko sopp bëgg ko juróomeelu kéemaan gi sëriñ Tuubaa na yàlla naaguloo na iblis ay gaayam ci moom sëriñ bi ba ñu xam ne seen pexe du ci moom juróom bi sëriñ na yàlla daa def malaaka sopp ko bëgg ko juróom bi it bi mujj sëriñ Tuubaa na yàlla dafa def mboolem jinne yi gëm dañ ko sopp lool moom sëriñ Tuubaa سرين محمد لمن جوم موني لولو لا بروم توبا دي واخ تي وفي سبع معجزات للرسول قد ظهرت وقبلها فزت بسول غلب بالمختار ربي للعدا قبل ظهوري لا ألاقي من عدا وهب لي ربي علما لم يكن من التعلم وجاءني بكن باه رسول الله كل الأنبياء عليهم وأبقى سلامي ربي بغربة عشر سنين بخدم خالصة لذي الوجود والخدم يحبني لوجه ربي المعيد بغير بغض أبدا كل سعيد أيس ربي أبدا وهو المعين إبليس مني وكذا كل اللعين يحبني ملائك الباخ الكريم لوجهه مع فلاح لا يرم قد ودني من آمنوا في الجن لوجه باخ كان لي بالمن sëñ mat lamin mu ne loolu sëriñ bi di am na sax beneen bayit boo xam ne sëriñ Tuubaa mi ngi ciy wax naan jinne yi doon ay jullit te jamonoonte ak man jébbal nañ ma seen bopp te ña ci doonul ay jullit nag sequma ak ñoom dara mooy li muy wax naan bi yatacallaqa allazina aslamu min jinni asri duuna man lam yuslimu sëñ Mut Lamin mu ne ba tey loolu sëriñ Tuubaa di wax naan hablillazi xadamani ihsaana malakan aw mastuuran aw insaana sëriñ bi day wax foofu naan yow sunu borom képp ku may liggéeyal de nanga ko fay pay gu rafet moo xam malaaka la wala jinne la wala nit la sëñ Modou Lamine mu ne loolu nag des na ci xamee ne sëriñ Touba am na mi mbindéef yu koy liggéeyal yu bokkul ak nit ñi ba tey nee na loolu sëriñ Touba di wax naan yàlla notal na ko ay noonam lu jiitu am na feneen foo xam ne sëriñ bi wax na fa ne muhammadun xad jaadali bil bi wa kullu man jaawarahu lam yoxla bi saadati baaqiyatun bila salab والله جملة عداه لي غلب سرين بنينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينما ما نرسى ما ينون كي كاتنو يالله سبحانه وتعالى تكيب كود موم صلى الله عليه وسلم كن دولا ما ننط نينا سمك تخي يالله بنينكو تدوت كفر موك مويلو يسخ تيوي تيالا نطلنا من بولم نونمي بدأ سرين بانجي وحنان لم ينحني مبارزو وفيض ربي بارزو إبليسو laa yubaarisu jundal azizil ahadi sëriñ bi neena na kuy léewtoo ku ne di nga ma tegg man xaadimu rasul te may yi ma yàlla may dina ne fàng ba ñépp teg ci seen bët te iblis de du song mukk soldaar yàlla yi te soldaar yooyu man lañu àndal nee na loolu sëriñ bi di wax naan yàlla may na ko xam-xam yoo xam ne su ko xamee cim njàng am na feneen fu muy wax naan xafiztu ma sina anit dafatiri فلا تكن عن خدمتي بفاتري ساق إلي الله جملة العلوم نعم الكريم والخبير والعليم نزع من يفعل ما يشاء العلوم ويمنها لي بكونه العليم ناجاني الذي إلي قاد خيرا يصفي خلدي فانقاد من علي الله بالتعليم وجاهلا أهدي وزا علومي سرين بدا daa يالا ne yàlla موات خم خم ma wattu xam-xam yoo xam ne nekkul ci ay téere bañ di ko mën a xam kon nag bul tàyyi mukk te yàlla jël na mbooleem xam-xam yi am njariñ teg ko ci sama loxo man Seexul Xadim te jox na ma ci coobareem ak barkeem mbooleem xam-xam yi yàlla déyaale na ak man sol ma loo xam ne day sellal sama xol ba faw defal ma xéewaloog jàngal ma ba ma raw mu def ma may gindi tey jubal képp ku réer ak ko xam sëriñ Muhammad Lamin nee na sëriñ Tuubaa ni mu soppee jullit ñi ak ni ko jullit ñi soppee loolu moom daanaka jarta wax ndax lu ñépp xam la te ñépp ci teg bët waaye nag am na lool faw tudd ko ngir barkeelu ci rek muy njariñ lu bari li sëriñ bi làmboo di ci jariñ jullit ñi ci xam-xam di leen jariñ ci alalam di leen jariñ ci jox leen ay mbóot ak dëkk di leen ñaanal saa su ne am na fu mu bind di ñaan sunu borom naan ko waxfir li kulli muminin wa mumina maxfiratan li kulli xayrin mudmina waxfir li kulli muslimin wa muslima maxfiratan tansimuhum min zalama waxfir li kulli muhsinin wa maxfiratan lahum taqudul xasana sëriñ bi nee na yow sunu borom maa ngi lay ñaan nga jéggal mbooleem ñi la gëm njéggal goo xam ne kenn ku ne ñoom da koy saxalal aw yiw muy góor di jigéen te nga jéggal mbooleem jullit ñépp góor ak jigéen njéggal goo xam ne dina leen musal ci ak tooñ te nga jéggal mbooleem ñi rafetal góor ak jigéen njéggal goo xam ne danga leen ciy wammatale wépp yiw sëñ Mat Lamin nee na ba tey sëriñ Tuubaa ngi wax ci matlabu shifaa yi naan wasfi jamii al muslimiina ajila thumma qihim xawfan wa xusnan ajila wa najjihim wa wa waltuf bihim wala tuaaxizhum bi kuthri zambihim fa innahum wa in asawka yaa ahad li gaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdaanahum laa taqdiru ala balaa'ika li dox fin yadharu sëriñ ñaan sunu borom ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan nga saafaraal mboolem jullit ñi seeni tawat jana mu gën a gaawee te nga fegal leen ñoom jullit ñépp tiit ak njaqare tey ne ko yow sunu borom yàlla na nga musal jullit ñépp te nga jàmmal leen te nga ñewent leen te bu leen jàppee mukk seen bàkkaar yu bari ndax ñoom de luñ la moy moy càggante doomu aadama rek la waaye bokkaari wuñ la dara ci seen xol mu ne wa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaa'ika li donfin yazharu qulubuhum laysat tamil abada ila siwaaka haahuna summa gada lakinnama talasusul jawaarihi afdahumu li aqbahi alqabaa'ihi wala tuwaaxisuhum bi ma laa yanqusuk wala hum waxab illazi laa yanfaxuk sëriñ bi ne sunu borom ñoom jaam ñii de seen yaram yi àttanul say nattu ak say balaa ngir seenug loof ak seenug néew doole te seeni xol nag du jàng mukk jëm ci kenn ku dul yow te ak ëllëg waaye nag matadik doomu aadama ak bànneexu bakkan moo leen di yóbbu ci ñuy jëf-jëf yu ñaaw léeg-léeg kon nag li ñu lay moy bu leen ko jàppee ndax mooy giñ lay moykat du la wàññi dara te na nga leen may sa xéewal yi ak sa njéggal gi te nga yërëm leen ndax yooyu yëpp kat am nga ko te doye woo ko dara te ñoom mënuñu ko ñàkk sëriñ Mor Lamine nee na ba tey sëriñ Tuubaa ngi wax ci xasida fastajaaba lahum rabbuhum naan farrij bi jaahil Mustafa an ummati yaa muxrijan abdaka za min xummati uktub salaatan wa salaaman linnabi filaali wa saxbi dhawi tajannubi sallim bi jaahihi wa jaahihim maa umatahu yaa waahidan lii qamaa nee na yow sunu borom yow mi nga xam ne yaa ma génne man sa jaam bi ci bépp njàqare maa ngi lay ñaan nga dindi tiis ak njàqare ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma notal samay noon maa ngi lay ñaan nga musal mboolem jullit ñépp ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak barkab sahaba ya ridwanullahi taala alayhim tafadalan ala zawi limaani bi farajin yaa waahiba al amaani jamilu awsil li jamii al muslimin wal muslimaati اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين من يا سونو بروم يال نغا دي نياخاري سي مبولم واي گم ني تاغا ديفال اك موچ مبولم جولين ني غور جيجين تاغا ديفال اك سيل مبولم واي رافيتال يي غور جيجين من كون نون لاكو سيرن توبا ديفه با خاسي داغا جيخ با سي يينن يو مل نون يو خامني لپ لاي واني اك جوفيل سي خيت يونتبي صلى الله عليه وسلم دي اي قصيده اك اي مبند يو خامني كين خامل لوم تولو من سيرن توبا موم jullit bu ne la mu bëggal boppam rekk la ko bëggal rawatina nag bu dee koo xam ne dafa bokk ci tànneef yi ñoom moom da leen di beral seen cofeelu bopp muy doon cofeel gu kawe te yàlla rekk tax mu ne li lay xamal ne sëriñ Tuubaa moom ku sopp xeetu Seydina Muhammad la sëñ Mat Lamin mu ne mas naa dégg ci moom sëriñ Tuubaa muy wax ne jamono yi may toll ci waxambaane di soog a xëqi dama daan def xeet wu ci nekk rek dama cay am xarit boo xam ne maa koy soppal sama bopp te yàlla rekk tax ku mel ne Muhammad al-Yadali mi nga xam ne moo taalif az-Zahabul Ibris te bokk ci bani Dayman ma tànn ko muy sama xarit jël ku mel ne Muhammad Fall ibnu Muttaal te bokk ci waa Tàndax ma def ko xarit ba tey it ci xaajuun yi ma tànn ci ku mel ne Ahmad ibnu Muhammad mi nga xam ne moo taalif al-Jawharul Munazzam def ko muy sama xarit sëriñ Mat Lamin nee na ba tey bokk na ci liy wane cofeel ak ñewante gi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa ëmbaloon mboolem jullit ñi nee na Sëriñ Tuubaa mas na leen a nettali bés ne leen jamono yi ma nekkee ci tukkib géej gi dafa am bés mu dégg moom sëriñ bi ne mbokkam mu ñuy wax Mouhamed Seck ak mbokkam mu ñuy wax mu Jóob Aram muy sëriñ Fetto ñoom ñëpp tubaab bi da leen a jàpp sëñ bi nee na ñu ma waxee xibaar boobu nag dafa tiis ci man lool mel ni àdduna dafa tukki ci man jamono ji lëndëm lool ci man ngir ñewante gu ma am ci ñoom ak yërmande gu ma amoon ci ñoom ngir ragal ci ñoom rek yàlla nattoo leen loo xam ne day yàq seen tawhid wala mu rekki seenu ngëm sëriñ bi nee na ma daal di ñaan yàlla fasaasa ngir mu xettali sama mbokk yooyu ca laa waxee ñaari bay diine yaa xayra xaafirin zunuban makka wa xayra xaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa anhum maa yajurru shakka mu ne ko yow sunu borom yow mi jéggale bàkkaar tey alak ab noonu yow mi nga xam ne yaa mën a fekk ku jàpp ba yeew ko nga tënk ko maa ngi lay ñaan nga yewwi te tinki mbooleem jullit bu ñu jàpp ba ñu dellu ci jàmm te nga fegal leen lépp luy waral sikk sàkk ci seen tawxiid sëriñ la mit nee na bayit yooyu nag sëriñ Tuubaa mi ngi ko wax ci xasida goo xam ne da koo tënkee wa ammaa maa naa sa fa ko fil ardi nee na xëy na bi sëriñ Tuubaa di jot xibaaru ñaari mbokkam yooyu dafa fekkoon muy taalif xasida gi moo tax mu dugal leen ci biir xasida ga ñaanal leen sëriñ Mat Lamin nee na boo dee xool ni tànneef yi woon sëriñ nag di nga gis lu yéeme lool te siiw lool ndax mbooleem kuy boroom xam-xam mbaa muy ko amub cër ci yàlla seedeel nga fépp sëriñ tubaa ak mbaax ak ak wilaaya kon foofu la sëñ Muhammad Lamin yam ci bunt boobu mu tudde woon xaatima di ak mottali gum doon def ci na Nadim mu daal dugg nag ci bunt bi nga xam ne daf koo jagleel lenn ci ay seede yoo xam ne lenn ci magi réew mi ak bitim réew yi dañ koo defoon ci sëriñ tubaa محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق بي بركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم